mbégte de lañ am nañ tay ji ndax dafa nekk lo xamé li ñu lu soxla la ndax transport dafa am désordre bu ci am kon tay buñ ko tënkee ministre bi recevoir nañu organisation yi kenn ko nag deux fois pour que ñu joxe terme de référence yi document pour ñu mën ci waxtaan ci tournée tay bi donc li ñuy xaar rek muy ñaari atelier yi nga xamné mom lañu wara tek pour que kenn ku nekk inscrire ci ci atelier ba nga wara a dugg nga ñu traité ci question yu bari parce que transport fi nekk ni dafa jaxasoo secteur bu mën doon muy secteur lourd comme secteur de passager dafa am fièvre bu ci am feebar boobu nag lañ bëgg a traité li ñu gëna ëppal solo nak moy li ñu wax ne dañu bëgg a taxawal benn kër comme conseil économique social comme comme comme ay institution yoo xam maison la bo xamné bi dañ ci mëna a traité des questions qui concernent le transport loolu nak dañu ne ay élections la wara lancer pour que ñu mëna xam ban syndicat kan ak kan mo fi nek ak lan nga la yoy nak bo amé daf ñuy arrangé bu baax a baax a dugg ci walu réforme ci euh, ci ci renouvellement parc bi muy gros porteur muy transport de passager muy surtout nak les déclarations au niveau des caisses manam ci chauffeur ñu déclarer leen ñu am ay garantie sociale bu ku nekk bo mën bo boo feebaree faju boo waree dem retraite dem retraite lolu dafa boko ci

orientation nouvelle orientation du transport loolu ba mu waree am dafa yàgg nanu xool ñi war a def transport ak ñi ko war a def ñi ko war a jariñu ji waaye liggéey sa liggéey ba retraité ñëw jël suñu transport toog di xool ñun ñu muy suñu métier loolu métti na kon bu duggee ci lii vraiment ñun dañ ciy kontaan ànd ci ak moom te di ko jàppale waaw gaa yooyu la la xeex nañu toog xeex bi jaru ko li ama man xooluma intérêt personnel intérêt réew mi laay xool lan mooy dimbale liggéeykat yi liggéey ci transport parce que tam di ñu utiliser ba ñu magat rek nga won ñu ginaaw loolu gaay bëgg a doxee man du ci dox loolu rek mo indi problème ma bëgg sëfoor yëpp xamni duñu talibé ño fi bayyi talibé mais du leen fi bayyi mëno fi am lo amul won lo fi mëna am mëno ko ba kon nga dal tay xaar yalla ci sa bop mo gën forcé tarif ak dawlu jaadul nawet la ñu tali yi baaxuñu auto yi baaxuñu même bu tali yi baaxee yi baaxuñu auto bi ngay dawal mo la mak jël responsabilité ci li ngay def xamni ay euh, soutien de famille nga yor ay responsabilité nga yanu borom yi bakkan nga borom yi euh, maanaam ay borom yi bakkan nga waaye ñoom dafa am ñu ne seen ginnaaw boo leen wa boo leen yoree nga nga respecté leen respecté leen mooy respecté sa bopp xam li ngay daw loolu laa doon kii ko